Infos 2S TV ak jàmm ci xibaar yi nag li ci jot a fees nag dan koy euh, doxee rek mbirum li nga xam si nag moom moo di jàngo bi ak état du Sénégal ginnaaw nag Ousmane Sonko kàddu yi nga xamante ne si nag yëkkati woon na rek jëmale ko ci li nga xamante ne si nag moom moo di euh, ci année scolaire bi muy euh, li nga xam moo di wàllum jàng bi ak jàngale bi ginnaaw nag bam ne. Euh, dootuñu nangatu benn yoon li nga xamante ne si nag moom moo di kuy muuru ñu koy dàq ci li nga xam si nag moom di école yi euh, loolu nag mu indi coow loo xamante ne si nag ba ñi nga xam si moom moo di waa jàngu bi rek daal euh, ñëw rek di ci tontu wax na daal danoo am suñuy règlement ku ko mën rek nga. ñëw euh, jàng ndax loolu daal duñ ko nangoo benn yoon ginnaaw nag ci Ousmane Sonko euh, kaddu yi nga xamante ne si nag euh, kaddu yi nga xam si nag yëkkati na ko moom mi nga xam si ne moo di Ousmane Sonko ci ginnaaw xap waxtaan bi nga xamante ne si nag doon na ko amal ci li nga xamante ne nag moom moo di fële nga xamante ne si ne moo di ci mi cent mille élèves yi nga xam si nag doon na leen. Euh, nommé moom mii di Ousmane Sonko rek mu yëkkati woon euh, li nga xam si nag moo di kàddu yooyu di leen jaajëfal bu baax di leen wax ngeen a woy di abone